batin ba cëb raxas xelam ne leen jaajëf sa xabdul karim ne jaajëf te ne ko jaaraama waay doomi sëriñ fallu bakke mat na waay demul dikkul tawaaji jaxle seeti ko sabu fa bayi ko gindiku sant ko di wër ci àll bi jaxay teraangaam boole ñi mi dundal te kenn deful daraam sëriñ abdul karim ku dem këram ba gis na muy defee ganam waxam ja day rafet te day dëppook jëfam day wuufe ngir waaf lu baax doko mane yërmaani jim am ci mi neefi lay wane teggin ya mat na ngor ak jom ja te am na gersa wii na bay ja doom ja teggin ya mat na ngor ak jom ja te am na gersa wii na bay ja doom ja yiwe na yeewu na yeyoo na kañ xanaa jugook i mbokkam law la cat xam àdduna si xabdul karim woyof na teey na muñ na xol ba yaatu na te am na fayda di benn jën dana woyof na teey na muñ na xol ba yaatu na te am na fayda waay di benn jën dana ku ko